alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk chrétien yi rawatina képp kuy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala bay pap ña di njiital association ànd taxawul ñu wére di te yàlla rek tax di assistance sociale jëm ci képp koo xamante ni néew doole la wala mu am tawat wala mu am tumuranke wala ñàkk dab ko ba dem ba koy xañ lekk ak naan ñuy fas yéene jóg ànd ak partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi bile muy waa Greensboro fële ca North Carolina ka nga xamante ni mooy seen njiit di soxna Ndey Faatu ak nga xamante ni ak ñi nga xamante ni ñooy waa AATGW social lu ngeen gis mu rafet rek xam ngeen ni ñoom bay nañ ci seen waar képp ak ñi nga xamante ni ñëpp ay doomu aadama lañ te saa bu ñu dugalee vidéo bu dee ñaat dërëm sax ñu yëkkati ko def ko ci liggéey bi ba noppi du ñu bëgg sax ku leen tudd wala mu leen di sant wala mu leen di gërëm di gërëm bu baax a baax a baax waa support santé mantale nekk fële ca diwaanu États-Unis di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ñu ciy jàppale ñu am lu yees tàq nag ci biir koor gi muy Ramadan Fod Package ñi nga xamante ni tey jóg nañ jàppale Pape ci descente yi nga xamante ni mu ngi koy def di dem di dimbali jaami yàlla yi ak mbooleem lu leen mën ti dal ak mbooleem lu leen mën a arrivé mu jëm ci seeni dundin Pape Niang di ci jóg di dem fekk leen foofu noonu di génne seeni tawat ak yooyu tey jii nag ñu nekk fii ci diwaanu Diofior Diofior ay bis ci ginnaaw defoon nañ benn live xamaloon ni dinañ fi ñëw lan moo ñu fiy indi naam du feebaru xel naam handicap la nag waaye handicap bi ak histoire bu doy waar jëmm joo xamante ni fitna yi nga xamante ni yenn ci ay dëkkandoom teg nañ ko ko ba tax jabaram xaru yenn ci ay fitna yoo xamante ni am na ko jëlee ci accident bu metti tay mu dem amel tay mu dem fi nga xamanteni mom moy crédit mutuel du Sénégal ñu lebalon ko xaalis bu bëri lu tolloo won ak 7 millions mu ma sëñ pap man de aw ay tank waye ñi am seen ñaari tank ñoo ñëw talal ma ay jaas yak paaka nangu alal jima yoron lepp ba tax tay ji ni ñu ñew seet ko mu xamalon ñu sëñ pap ay fan ya ngi ñu nanu ñu ta xam ngeen ni pap ñaa du ko ñu nanu ñu ta mu yor ko ta di la loole sabab sunu teewaay fii ci diwaanu Diofior li fi xew nag metti na trop ci liñ leen di woo rek mooy sunu baay bii nga xamante ni ci moom la ñu jëm danoo bëgg kenn ku nekk ci yéen ngeen làmb seen poos lu ngeen daj ngeen joxe ko yokk te jëmm yàlla tax sama doom baay bu tedd bi doom sama doom baay bu tedd bi di Fadel Niang bu dakaar Buzz Social moom it di def liggéey bu am solo naam fii nga xamante ni ñëw nañ fi sax fekk nañ ko fi mu def fi liggéey bu am solo moom doom baay Fadel di yëkkati ay xéewal diko joxe and ak wa Dakar Buzz lolé nek mention spéciale bo xamanteni geste à saluer la mom Fadel ñang l'homme l'infatigable du sonn du noppalu du tayel jamono bu nek mi ci aajo doomu aadama yi kon nañu and ak ki nga xamanteni moy suñu cameraman bi and ak wa ka urgence sur le terrain ñu dugg ci bir xol ki nga xamanteni mom lañ fa wara fek ana nan lay dundé ci société bi asalaamaaleykum wa rahmatullah baay booy ñu ngi siyaar baay yaa ngi am tawféex bu baax ak lan nga ñu mën a wax li sabab sunu teewaay ci bërëb bii nii wan eh, maa ngi tudd Abdou Sarr ñu gën maa xam ci Abdou Ndiakh maa ngi dëkk Diofior juddoo Diofior eh, di sabab affaire bi nag man ci sama bopp eh, mosuma tàllal loxo ñaan ma njiyee mosta am te maa mos a gëm liggéey di liggéeyal sama bopp yàlla di ma war sakal mais ci biir loolu ñu nga xamante ne dara jàpp leen ñooy ñëw benn tànk bi nga xamante ne yàlla natoo na ma benn bi ñu ne benn boobu itam ñoom ci seen bopp dañ koy jël boole ko ak seen ñaari tànk yi loolu mooy sabab bi boo fi mu nekk nii li tax ngeen ñëw fii nag mooy gàllankoor boobu ci laa am boo loolu moo ma def ma am problème ak crédit mutuel di Sénégal waaw ci biir loolu bor bu ma fa bu bor bu ma fa mos a jël di ma koy fay bala affaire bi date bi di yegg si mais bi ma jëlee prêt ci ñoom eh, affaire bi ma kii ma toog ba benn guddi mu am ay nit ñeenti nit yu nga xamante ne ñëw nañu daji sama bitig dugg si eh, yàq alal bi nga xamante ne moom laa doon liggéey ak crédit mutuel ak alal bi nga xamante ne maa ko moomaloon sama bopp di ko liggéeye ci biir loolu nag la ñuy yàq lépp lépp lu doomu adama doon suturloo yàlla defaloon na ma xiiwal ba ma di ko suturloo mais loolu mooy gàllankoor bi daal pap li ma la ci mun a wax ci biir loolu dem na sax boo sama soxna sax e, ñàkk bakkanam en mille 2001 dafa xaru nag nekkul ne mu nekk lu lu nga xamante ne feebar la e, mais dafa xaru ñàkk bakkanam su ngeen kii mun ngeen dem ba ci néeg ba mu xaru woon moom ci boppam néeg bi daanu na ci nawet bii paase mais boo tey buum bi nga xamante ne moom la xara woon dagitu buum ba mu ngi ci bante ya bu ngeen am firndi bu leer man sama bopp itam lii dox sama diggante ak crédit mutuel bi ma ko commencé ak tey dem na ci ñaar fukki at ak lu teg mosuñu maa topp ci dara dama doon fay lépp à temps su ma soxlaatee itam même su dee ay millions su ma defee demande sax balaa mu am 15 jours sax ma jot ko parce que am nañu kóolute gi man woolu naa leen boobu woolu nañ ma mais ay ni doomi adama yi nga xamante ni dara jàpp leen itam ñoo ma yàqal teraanga boobu. ndax mën nga dellu si waatal ci soxna si xaru bi nga xamante ne xaru lan nga jàpp ni moom moo ko metti ba tax mu def jëf jooju moom. li ko metti daal xam naa ne ci boppam ni nga xamante ne souffrance bi ma nekk woon nekk woon temps yooyu. xam naa ne bokk na ci li ko métti parce que ki nga xamante ne fu mu toll woon euh, fu ma doon tollu pa wallahi lazi dama doon dem Kaolack wala Fatick di dox ci mbedd mi dem ci magasin yi nit mun na ma kii sax yëkkati fukki dërëm ne am yàlla jox la wala cent franc ne am yàlla jox la boobu maa ngi ak ay millions ci sama poste xamu ci dara nga xamante ne secret yàlla rek moo am kii man itam ku ma sarax loolu itam dama koy jël rek bobu maa ngi ak samay millions. ndax jamono boobu noonu. moom dem na nag. boo fu may demati pap dama koy yónni ne demal ci diw mu dimbali ma ci lii mu seet ne Abdou mi nga xamante ne bi mu amee ba tey musta wax ne nangam su buggee dem feneen toog ba di ma wax ne demal ci diw mu arrangé ma ci ñaar téeméer ah affaire bi métti na xam nga ne euh, moom ci boppam lu ma ko waxul itam dina xam ne affaire bi métti na parce que moom ci boppam benn soxla Moustapha naan àlla waaw. mu mel ni moom daanaka dem na tey mu ngi ca kër dëgg. Mhm. tey bu nga koy ñaanal sunu borom yal yàlla gërëm ak jëlam te xare ko àjjana bu baax euh, moom tey ndax ci dundam moom mhm. ci côté ay mbokkam mhm. dafa am jëf joo xam ne mës nañ ko koo jëf ba tax loolu nekk ci xolam wala dafa am jëf yoo xamante ni nit ñi ñoo koy jëf ba loolu nekk ci xolam ba tax parce que képp koo xamante ne xaru na rek am na cause boo xamante ne mooy cause principal bi tax mu xam loolu daal eh, sama kii bi sama e, niñ ma bun xataale atee ma ñàkkal parce que pap ñi nga xamante ne ñoo ma jëf-jëf ji e, ay góor lañu rek nu ma nekkee góor su dee doonoon naa dox ak sama ñaari tànk bi loolu am ci guddi ñu fekke si ma wala kii ma jox ko sama alal mu ne du ma jox sama alal ma faat ko wala mu faat ma ñu xamante ne ab du dem na boo dee na ci alalam dañ ko upp doole nag faat ko Eh, wala nangam nangam nangam nangam parce que su ma doon dox ak sama ñaari tànk ñii ñëw boo dajji bitig bi et eh, mun nañu ñëw mais bu ñuy ñëw mun nañu xalaat ne mun nañu faat Abdou mais mun na mun nañu xalaat itam ne Abdou mun nañoo faat. kon daal su ma bëgg su bu baax a baax li yabeel la rek. ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël sa alal dañ koy jël dañ laa fekk nga nekk handicapé. déggoo li ma la wax damaa nekk handicapé kañ handicapé bi mu ngi daal à l'âge de deux ans et presque ma dugg ci sama troisième année yaa ngi dégg dem na école dem école dem école ba mu kii ma mujj defee commercial bi yaa ngi dégg boobu handicapé la te loolu yëpp na ko conclure Pape ci conclusion bi suñu ñu demee ba war a conclusion danaa leen wax nu ma xamante ne noonu laa bugg a conclure sama kii parce que li may wax nii dama leen di wax les. leen yàlla moo séede yàlla moo nekk bi nga bi ma nekkagul yàlla moo nekk bi ma nekkee yàlla mooy nekk itam su may nekkatul lu wér nag laa ci bugg bugguma ci nga xamante ne yokk naa ci lu dem ci virgule bugguma ko parce que xam naa ne keroog yow mal xiyaam parce que am na nu ma buggee sama dund dund bu mujj ba. dëgg la fi mu yan jafe-jafe moom ngay dund te bëgg jafe-jafe yooyu saafaraw ci wàll dundin bi nga xamante ne yaa ngi koy xam nga ne dund bi li ma ci bugg premièrement gis nga néeg bi ñu ngi ñëw ci nawet war nañ ko xadd te sama doole mayeetuma ko lalu reposant moo fi newoon mais loolu yëpp dara newatul éponge bi dañ koy lal nii ci suuf rek xale yi tëdd ci man sama bopp maa ngi nekk ci li fi may ma fekk fii lay fanaan yaa ngi dégg su ma buggee génne néeg bi itam gis nga chaise roulante bi chaise roulante bi sax mu ngi am problème léegi parce que soo koy pousse léegi pano yi day mel ni day taqaloo léegi doon na dem directement nga pousse ko mu dem mais kenn mënatu ko pousse léegi sax fu nga xamante ne xam na am suuf tuuti su su dee fu déger rek mais doon na kii noonu loolu itam nekk na jafe-jafe yaa ngi dégg jafe-jafe bi jafe-jafe bi nag xam naa ne crédit mutuel ñii ma lebal seen alal moomuñu ko sama moroom ak sama moroom sama ñaqu moroom ak sama ñaq ak ñaqu keneen ak ñaqu keneen dañu boole jox ma seen ñaq lu ma gënal su ma ko mënoon tey jii ma yoro woon ko balaa bésu tey talaata bi passé ma demoon gontu delloo leen seen sept million waaw sama wer itam kii na parce que man sama bopp li may daj ñi sama wér gu yaram rek man maa ko xam ak kii bi parce que dañ ma opéré bi nga xamante ne gaañ nañ ma jaas euh, bi dugg na ci loxo bi ba deret bu bari génne. ndax mën nga ñëw dellu si ci agression bi bi ñu ñëwee lan lañ la wax ak nan lañ def ko yóbbu xaalis bi nga euh, ñoom ci seen bopp dañuy ñëw wax ma ne ñun ci suñu bopp dañuy dox ci lu wér yoru nga xaalis ma ne leen xaalis yoruma ko ñu ne am nga xaalis waaw xaalis bi daal da nga koy kii walla. E ñu rey la ma ne leen lu ngeen ci mun daal def leen ko waaw comme munuma bañ kii munta bañ sañ nangu rek ñoom ci seen bopp ñu jël jaas yi gor bopp bi gor bopp bi gor bopp bi gor bopp bi ba mu kii e foofu la ñuy kiyee ne noonu e yow ci sa bopp comme nangoo wax da ngay wax wala dañuy dugg ci biir far la forcé def li nga xamante ne loolu la ñu bugg a def ci biir dugg ci biir ci biir loolu bi ñuy wàññeeku sax xam naa ni ndax dañoo dox si wunu oto moo leen wàccee parce que dëkk bi ak tali bi sorewuñu mais bi ñuy ñibbi sax dëkk bi nga xamante ne moo toppoon ci dëkk bi ma nekkoon ngooye ñu di ko wax mbeexu ren foofu la ñu sàccee fas ak sarit sax yóbbu ko kooku moo leen yóbbu bi ñuy ñibbi fas ba ak sarit boobu boo tey kenn xamul fi mu nekk ci àdduna nii la affaire bi demee waaw xam ñaata doom man sama bopp ñaari doom la am muy kii ak rakam ñoom ci seen bopp itam ñu nekk ay jàmbaar lool ay jigéen lañu mais jigéen bu nga xamante ne wax dëgg munoon na am ay doom yu góor sax te ñu ñàkk amun lu ñu kii waaw parce que kii dem na boo présenté bakkam mais dafa wax ne sama papa mu ngi nekk ji souffrir moom rek et ma continuer jàng loolu moo ko bàyyiloo jang rak bii moo continuer ci jàng boo mu ngi ci première fii mu nekk nii encore war a def bakk déwén mu ñoom sa doom yi fan la la ñuy fanaan ak man. ñëpp ci su dee kooku nga xamante ne su école tëjee. keroog dimanche rek la ñëw fii weekend e, su ñëwee fii la ñuy fanaan ak man ci néeg bi lépp lu ma yiitewoo pour bugg ko e, e, ñu ñu jàppale ma ma mun a def loolu. bëgg nañoo xam ndax fan yi nga xamante ne yaa may woo.

danga nga koy jëndi 3000 wala eh, kii bi encore eh, matt yi pour nga toog ci fourneau bi da nga koy jënd wala nga jënd ay ay ay kiriñ yaa ngi dégg loolu yëpp affaire bi dafa nekk ay dépense su kese voilà ci biir dépense yooyu nag loolu lañuy dem ba ak li ñuy yoral borom bitig bi affaire bi munatul a dem affaire bi def arrêt man sama bopp borom bitig bi xañul ne mënatuma mais gis naa geste yi nga xamante ne su xale bi demee wala ma woo ko ne dama bugg nga dimbale ma ci du wax ne mënuma ko mais xam naa ne affaire bi dafa dem boo defee ne xëy na lii wóoratul parce que am na fu nga xamante ne su ma ci yégee itam mun na def gàllankoor eh, pour paiement bi parce que ki nga xamante ne moo nekk borom kër gi nga xamante ne mu ngi tëdd toog eh, xamagoo kañ lay jóg eh, sooy jox itam topp ko ci bugge buggam itam mun nga dem boo nga am problème ci sa bopp lii moo taxoon ñu woo bi nga xamante crédit am na foofu affaire bi de yàlla baax na ci boppam itam mu woo la moom bi dugg si wax ma ne jot naa nijaay Pape Niang ne nee dafa ne ma jox la ko ma ko waaw jox ma ko foofu laa ak yow nga ne ma ñu ngi dem Fatick nii mun nañu jaar si foofu sax mais suñu fa jaar si wul xaw ma suñu fa jaar si wul ndax guddee bi nga xamante ne il faut que ñu def dara parce que ñu ngi préparé pour dem foofu yaa ngi dégg bi nga toogee ba ci guddi ba nga envoyé 15000 francs bi mu nekk 15000 francs bu nga xamante ne wallaay li mu faj paap ak weeru koor bi ñu nekk yàlla ak yonente bi rek moo ko xam parce que ñeme naa ci sama biir boo dee ci xiif mais ñi nga xam ki nga xamante ne mu ngi kii ci sama waaw su ma soxla dara moom moo ma jàppale su ma buggee tuur ndo su ma buggee tuur ndox sax moo moo may yëkkati jàpp ma kooku warte dem ba nga xamante ne biiram dara manqué na ci te moom mu ngi ko doon def ak xiif to onk wu ci dara ne métti na wala munatuma ko mu gën a engagé looloo taxoon ma woo la papa aka saa yekkoon ni ma koy faral di waxee rek lu metti yàgg na ci àdduna xam ngeen ni sketch boobu nga xamante ni maa ngi ko doon faral di def muy caméra cachée bëri nañu ko soxla waaye dafa am ñu ko yellool ndax ki nga xamante ni moom moo di Abdou Sarr mii nga xamante ni moo toog xam ngeen ni handicapé la te bi mu juddoo la ko feebar boobu dal bi mu amee ñaari at moom ci boppam muy dund situation yi jéggi dayoo nekk góor yàlla nekk koo xamante ni da daan daw guddeeg bëccëg suba ngoon ngir njabootam mu mel ni yi nga xamante ni mi ngi koy dundalee ak njabootam dafa mel ni ñenn ci ay dëkkandoom yéene wuñ ko ko ñàkk giñ ko ko ñàkk yéene moo tax lu baree baree bari di faral di am mu bari ay jafe-jafe yoo xamante ni moom Abdou Sarr dund na ko loolu kay moom la olof njaay di wax naan ku saraxatul silmaxa kay xanaa bàyyi koog yelwaanam waaye moom saraxatuñu ko moom ñaanul kenn su ko neexoon mu ne handicapé laa dem di tàllal loxoom comme ni ko ñëpp ñu bari di defee ndax ak ñàkk waaye moom mu jóg di di raam di jóg yor bantam di jóg yor puus-puusam ubbi bitigam di jaay ay gaz waaye ñi nga xamante ni dañoo yor seen ñaari tànk moom mu dem ci liggéeyam boobu noonu ngir suturaal njabootam loolu tax moom Abdou mi toog mu dem lépp ñi nga xamante ni mooy crédit mutuel du Sénégal valeur lu tolloog 7 millions nee na sax moom dafa jàppoon ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël alalam dañ ko topp wala boog ku ko xam moo ñëw xamal leen ni kii yor na xaalis ñu fekk ko ci bërëbam génneel ko ay jaasi te yor seeni ñaari tànk fekk ko ci situation bu metti mu tegoon ay projet ngir ëllëg même su fi jógee ak njabootam am ci lu ñu jàpp waaye tey su fi jógee woon tey yàlla tere njabootam ana fan lañ ñu jëm ana kan moo leen di uutu ana kan moo koy taxawu ci njaboot gi ana kan moo koy wéttali ñàkk googu watat ko ba mu dem ba dëkk ci néeg boo xamante ni su tawee ndox mi yépp ci kawam la jëm nee na dem nañ ba may ma ñaari paan yi ngir suy taw ñu mën a ko dékk ngir ndox mi mën ci dem nee na ma pap ndox mi da ciy dem ba jeex tàkk ba paan yépp fees bépp matériel bu nekkoon ci biir néeg bi fii ndoxu taw bi moom moo ko yàq ndax lan ñàkk xadd boo xamante ni kenn ku nekk ci ñun loo ñàkk-ñàkk-ñàkk sunu borom lu mu gàtt-gàtt dina la suturaale sax foo xamante ni di nga fa wéeru ba buy taw ndox du laal sa kaw mu nekk handicapé moom ci boppam fii ci biir néeg bi mu dëkk fi ak ak njabootam ñaari doomam yépp mu bokk ak ñoom benn néeg néeg bi amul lal néeg bi amul matelas néeg bi amul ventilateur néeg bi amul armoir néeg bi ana lan moo fi nekk ay bagages yoo xamante ni tey kenn ku nekk boo sañoon boo duggee ci ab néeg gis bagage bu ci nekk am sutura waaye tey li nga xamante ni moom la def mu doon mu koy suturaal ci yenn bagage am mooy rideau bi nga xamante ni moom ñàkk pexe rek moo tax mu def ko Pape Niang sur le terrain di gërëm bu baax baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi ba lépp di yemb muy waa support santé mentale di gërëm bu baax a baax waa a AATGW social def te yàlla rek tax di gërëm ñi nga xamante ni tàmbali nañ bis ni ki tey di jàppale Baye Pape Niang sur le terrain muy waa Ramadan Fod package bi nga xamante ne ñu ngi jënd ay dund di ma ko jox ngir ma yaatal ko ci jaami yàlla yi ba koor gi jeex ñaan naa yàlla sax bu koor gi jeexee yàlla bu loolu jeex ñu gën di ko wéyalee di wax ne ñooñee ñëpp nga xamante ne ña ngay def loolu jëf ji ñu ngi ko gisee ci jëmm ji tedd gi nga xamante ni moom moo di sama doom baay bu tedd bii di Fadel Niang bu Dakar Buzz Social ndax bi ñëwee fekk nañ ko fii ak dund gu doy dund gu am solo wax dëgg yàlla ndax olof Ndiaye day faral di wax naan képp ku yokk cere war ngaa dolli ñeex kon Fadel def na fi cere kon dañuy dolli ñeex rek mm-hmm. loolee tax ñu fas yéene jox suñu baay bi daañu ko jëndal lu tolloog ci ravitaay ci ak dund lu tollook ñaar fukki junni te jëm yàlla rek tax daañu ko teg ci loxoom fukki junni ak juróom ngir maanaam xiif boobu nga xamante ni mu ngi ko doon jooy ba taxoon ñu yónnee ko ñetti junni ñu koy ñaan yàlla xiif boobu yàlla na fi dañ ba faw jóge fi di woo nag ñi nga xamante ni ñooñu mën a jàppale dañoo bëgg defaraat bërëb bii nii tabax beneen néeg ngir njabootam gi dindi xadd bi ba mu set peinture ko lal yi ana ki ñi ko am armoire yi ana ñi ko am télévision yi ana ñi ko am nañu jaamu yàlla ci jaamam ñi jëf ji nag du ñun yéen la waaye bu ñu ci kenn tagg bu ñu ci gërëm ndax lii suñu borom bindoon na ko ci ak dundam ni ko dinaa mës a jox jox pap mu indi ko jox la kon lii ñu la jox baay yaay borom yàlla na jàmm. ginnaaw bi nga xamante ne sunu borom atte li nga xamante ni moom lañ diggante ak baay bi di di ki nga xamante ne mooy Abdou Sarr euh, def nañ ci lañ ca mën ci li nga xamante ni mu ngi bàyyeeku ci jaami yàlla yi di tegu ci sama loxo ñu ma sëñ pap defal ñu ko fi yàlla gërëm. te gëm naa ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def buñ gisee lii nga xamante ni def nañ ko dinañ xam ni def nañ ko fi yàlla gërëm kon ginnaaw bi nga xamante ni jëndal nañ ko ab dund gëm nañ ni lu mu gàtt-gàtt ñetti ba ñeenti weer moom sunu baay Abdou Sarr dina ci mën a dund moom njabootam waaye xam nga ni ku joxe ceeb joxe diwliñ joxe suukar joxe meew joxe kafe des na mooy li nga xamante ni moom mooy safal ab ceeb ndax ab ceeb kat boo ko tegee nii rek bàyyi ko fi lan moo lay wan ni borom am na lu mu ko toggee loolee tax ñu yëkkati lu tollook fukki junneeg juróom-benn teg ko ci loxoom bu sell bi te yàlla rek tax di ñaan yàlla yàlla na fi xiif gëj ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag balaa ñuy dellu siwaat fii yàlla nañu yàlla jox lu ñu ko tabax xalaatee bërëbam bii lu ñu ko defaralee doomam yi beneen néeg boo xamante ni danañ ci mën a nekk suturlu ci te it ñuy sàkku ci képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan te nga am lal wala matelas wala télévision wala armoire lepp lu jëm ci néegub ku baax ñu ngi koy dagan ci képp koo xamanteni mu ngi seetaan vidéo bi ñu ngi ñaan yàlla vidéo bi bu jàllee balaa muy am 24 heures nit wooñu ni ñu sëñ pap maa leen jox lal bi jox leen ko Abdou sar maa leen jox armoire bi jox leen ko Abdou sar ñu yëkkati xéewal gi teg ko ci loxom tey sàkku ci moom mu ñaanal ñu rek waaye bu mu ñu sant bu mu ñu gërëm comme dab niñ koy waxee rek du ñun yàlla la yàlla la sopp ndax kàttan geeg pexe beeg pas-pas beeg lépp mën-mën gi yàlla képp la bu neexoon yàlla duñu ko mën ba di ko def kon bu ñu ko dee def rek grâce à sunu borom la kon ñu daal di yëkkati xéewal gi jébbal ko ki nga xamante ni mooy Baye Abdou Sarr te koy wool wool wool ma wool Aïcha ndeysaan nee na nee na nee na Aïcha moom mooy tànk bi nee na xéewal gi ñu teg ko ci loxoy doomam ju tedd jile moom sax soxla nañ ko ndax wax dëgg yàlla am na ay kàddu yoo xamante ni war na ko cee dolli Aïcha bismillah ay Aïcha ginnaaw bi nga xamante ni sa wajuru tedd wi ñu ngi koy jox xaalis ginnaaw bi ñu ko jëndalee ravitaillement daanaka li ko manqué ñaar fukki junni bariwul loolu moo nekkoon suñu yéene mu mat ñaar fukki junni waaye li ko manqué bariwul ñu waxoon dinañ ko jox fukki junni ak juróom waaye teg nañ ci beneen junni muy fukki junni ak juróom benn doon ko ko jox mu ni nañ la ko jox bismillah konte ko bul jooy soxna si bul jooy sant leen yàlla rek suñ borom mooy yore ay nattoom mooy yore ay daanam lan ngay wax ci jëf ju tedd ji keroog bi nga xamante ni woo nga ma noo def ba am sama numéro ba woo xol tooy na Baye xol tooy na moom mii nga xamante ni moo toog ndeysaan way juróom wu tedd bëggoon baayam ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nit ñi daan dund ak moom ba taxoon mu daal di jël ak buum gàll ko ci baatam daldi xaru fa la jaari ñàkk bakkanam tey jii moom doom ji mu toog fa yaayam féete woon baayam moom mu fas yéene faa féete baayam nekk ci wetam di ko toggal nee na mooy samay tànk mooy samay loxo mooy sama dund kon ñu yëkkati kàddu gi donte ni xol tooy na trop waaye soxna si dëgër may sàkku ci yéen ngeen jàppaleel ma ko moom ci boppam moom ci boppam moom soxna si bëgg naa ngeen jàppaleel ma ko te yàlla tax su ma fiy ñëwaat ma indil ko loo xamante ni moom dina ci suturlu dana am ay yére dana am sax lal bu mu tëdd maa ngi leen koy dagaan ngir jëmmi yàlla maa ngi leen koy dagaan ngir jëmmi yàlla maa ngi leen koy dagaan ngir jëmmi yàlla te yàlla rek tax man de su ma ko amoon tey balaa may jóge ci kër gi fii wallahi dinañ am ci luñ tëdd yàlla sedd na ko waaye nag gëm naa ni du ci wéet ndax yéen ñi nga xamante ni yéen a may seetaan gëm naa ni du ma ci wéet fu ma dem sama xol dina tooy naam seen xol dina tooy waaye man mi nga xamante ni may jànkonteeg jafe-jafe yu mel nii sama xol dina tooy ndax mënumaa gis nit kuy jooy te li muy jooy metti na ñàkk gu tar tax ngeen dem bay xiif du ngeen am lu ngeen lekk ñàkk gu tar dem ba ñu nekk ci benn bërëb nday papa ak doom papa ak ay doomam amuñu sax lal buñ tëdd amuñu sax mat laa buñ tëdd waaye lii metti na waaye waaye lii metti na jàppale leen ma ci jàppale leen ma ci képp koo xamante ni daal bëgg na néeg bi ñu defar ko ba aménagé ko sama numéro ngi noonu képp koo xamante ni bëgg ngaa dimbali sunu baay bii ma ni yónnee leen ko li ngeen ko yéene waaye man li ma yitteel mooy ma defar ko néegam bii te yàlla tax ñaan nañu yàlla nawet bii di ñëw sunu baay toq ndox du ko dal bu génnul ci biti ba tawti soxna si dëgëral rekk nga yal na leen yàlla taxaw fépp fu ngeen jublu yenn na fa yiwu yàlla jiitu yal boo leen gis loo leen tiit mbaa ngeen di ko ragal. ndax mën nga ñoo wax ci kër gi fii ginnaaw yaa ngi ak sa papa muy dund ay jafe-jafe yu metti amaana li ëpp sax yow yaa ko mën a wax yow mi nga xamante ne yaay doomam yaay tànkam yaay loxoom yaay léppam lan nga ñu mën a wax ci yan jafe-jafe ngeen di dund ci bërëb bi. mooy comme ni mu ko waxee rek pap sam papa bi mu koy mën mosuñoo jooy dara lépp lu ñu mosaan bëgg suba balaa jant soo mu defal ñu ko bitik boobu ngeen jël sànq foofu la njëkkoon nekk boobu xale laa ay nit fekk ko fa yàqal ko jël alalam bi suñ metit yow yëpp jàpp sama yaay <laughs> ba ci la xaroo woon ma war yëpp ci bitig bali bitig bi ngeen gis ci kër gi foofu la ñu doon ñëw fi laa joxe Babou baas li ma ko jox foofu laa joxee Dudu Ngariñ Caam lu ma ko jox Émilie e, Jamboñ Nduur càng bi ma def ci sama jabar bi foo fa la ko ko joxee ñooñu ñëpp nag woor nañu ne joxuma leen loolu léegi Abdou moo nekk ku bon ki ci àdduna bi ku baaxul ki gis nga man ci sama bopp dëkk bi am na ay arimel yu nga xamante ne képp ku fi jógee fan lañ lay yóbbu mais wax dëgg billaay azim pap bëgguma ma faatu ñu yóbbu ci armel yooyu comme defe na ñun ne ñoom ci seen bopp ay nit yu baax lañu te benn soble su su nob su demee ci saako yàqu ko bugguma yàqal leen dara damaa bëgg bitig bi ñu waxe woon wax yi man ak ab du Bass kii Babou Baas man ak euh, Doudou Ngari man ak euh, Mamou Ndiakh ak Abdou Baas ñoom ñett ñu seede ñu kii ne loolu amul ak ñoom Émilie Jamboñ Ndour ma joxe leen foofu lu ma leen jox sama alal sama alal boobu ñu yàq ko def ci lu leen neex ci seen ngeen ngir am nañu ginnaaw Abdou amul ginnaaw léegi nag ma bugg suma faatoo paap lii laa euh, bugg a dénke bugguma sax ma faatoo Eh, su ma am li mu sama dund su ma faatoo woon am ay milliards sax bugguma dëj ab dudee ñu di ko defal ay mbiskit wala ñu di ko defal ay naka et mu kii pap bisimilla lu ma bugg ci sama addu sama mujj adduna sama mujj dund ma di wax ne yàlla yaa fi nekkoon boobu ab du nekkagul nga nekk fii boo ab du nekk ab du nekk na am na ay jafe-jafe adduna yow xam nga ma yàlla ku ma xamul itam xam nga ko lu ma liggéey xam nga ko su ma baaxee xam nga su ma baaxul xam nga ngir yaa ma sakk dara réeru la ci man li ci nit yi wax su dee dafa nekk lu nga xamante ne lu am la yàlla eh, su ma dee ba ñu rob ma yàlla naa xippee jax na ba mais su dee li ñu wax nekkul benn dëgg ndax nooneel la ak mbañeel su ma dëkk yàlla naa dëkkee aljanna loolu laa bëgg ñaar ñooñu nag sude lu bon li ñu wax ci man mo am yalla na dikke dëkk ci biti ci bitik bi jof yor nga xamantene ci lañ ma njëkk lima fofu la laa joxe baabu baas li mako jox fofu la joxe ci sama ciangu jabar bi li mako jox fofu la joxe dudu ngariñ caam xaliss bi mako jox mu jëndalon ma gettu nak ñom ñepp ñu wor ma léegi nak sude liñ ma woré wax né Abdou dafa bon dama bon man ci sama bopp li may kii te wax ko ci yàlla billahi lazi la ilaha la su dee mbon boobu moo nekk ci man e, e, wax nañu dëgg yàlla su ma soo ma moomee ci sama bés bu mujj ci àdduna yàlla naa dëkkee suñ ma suulee ba pare yàlla naa dëkkee jax na ba yàlla naa dëkkee jax na ba bokk ci ñi nga xamante ne ñooy bugg di taal jax na ba allahuma amin su dee li ñu wax nekkul dëgg ndax mbañeel dong la ñoo xam li tax ñu bañ ma yàlla dara reeru la ci man yàlla su dee loolu du benn dëgg yàlla naa dëkke aljanna firdawsu allahuma amin léegi ma ñëw fi ma jaxale bàmmel fekk si naa la man Abdou Sarr su dee dama nekkoon ci àdduna ngir mbon di def mbon ngir xamuma ne dinaa la fekk si bàmmel xëy si naa nga seede ma su dee dama nekkoon ci àdduna di def lu mbon bamel yendu si na su dee damaa nekkoon ci àdduna di def lu mbon bamel fanaan si na parce que ñaar yooyu rek la ñetti yooyu rek moo mën a am damay xëy ci bamel wala ma yendu bamel wala ma fanaani bamel loolu nag na nekk lu nga xamante ne nga seddal ma ko yow yàlla sama mbon eh, xam eh, yaa leen gën a xam sama mbon walla su ma baaxee. wax dëgg yàlla doy na waar lu mel ni mosuma ko gis moom. abdu sar yekati kaddu ni budé ak mbonam motax aduna àdduna yépp beddi ko yàlla seede na ko ak mbaxam yalla sédé nako mom abdu sar néna bu fekkente ni liko aduna bi wa dëkk bi ñenn ci ñom diko jiñ ci ak mbonam bu ni lu am la nee na yal na de bu deewee yal na dekkee safara ndax nee na yàlla mooy ki xam li nëpp mooy ki xam li feeñ nee na su fekkente ni ñàkk gii ko yàlla teg ba ñu jël alalam tasaare ko yàqal ko ba mu yàqu yaxeet ba jàpp ni armeel yii ci biir dëkk bi ku baax faatu fa lañ lay denc nee na bu génnee àdduna bu ko fa kenn denc taman doy naa ci seede nee na fi mu bëgg ñu denc ko fa mooy bitigam bii nga xamante ni fa lañ ko toroxalee bitigam bi nga xamante ni fa lañ nangoo alalam bitigam bii nga xamante ni fa lañ ko yàqalee bitigam bi nga xamante ni fa lañ ko tegee natt yu métti yi ba tax tey mu yëkkati kàddoom ni tey su deewee suba bàmmeel mi ngi la koy dina la fekk si su deewee bëccëg bàmmeel dina la fekk si su deewee guddi bàmmeel dina la fekki si bay booy ana nan ngay def sa njaboot gi boo fi jógee E, njaboot bi yàlla laa leen di bàyyi e, yàlla moo mooy li ma la wax rek bi ma nekkul yàlla moo nekkoon bi ma nekkee yàlla di nekk su may nekkatul itam yàlla mooy continuer di nekk rek. ndeysaan dégg ngeen ko dégg ngeen ko yaa booy nan nga déggee kàddu yi nga xamante ni sa waajur dénkaane na ko ngir at kàddu yi nga xamante ni moom la wax en tant que doom ñàkk ndey tey gis kenn muy sa jur mu yëkkati kàddu yi lan ngay wax ci loolu. maa ngi koy ñaanal yan na yéex mais man dama respecté waajur lépp lu mu wax ci dundam rek saa yu mu fi jógee tamit loolu kese laa koy defal ci kattanu yàlla ak mbaaxam man bu ma gisee nit kuy mettital waajuram sax as surtout ndeyam sax damay am lu mu metti ci sama xool ndax à chaque fois damay posé wu question ay sama yaay fu su fi nekkoon tey xëy na metit yu ma jot di jàkkonteel yëpp du am pap mën naa ne xanaa sama bésu ngénte ba kese moo nekk sama ba neex <laughs> mais bu ma nekkee àdduna ba ni ma toll nii aw ma benn yoon baneex